artiste maam Goor maa ngi lay euh, nuyu bu baax di rafetlu d'abord sa liggéey comme artiste parce que loolooy sa liggéey mais aussi di rafetlu sa engagement auprès du président de la République son excellence monsieur Macky Sall maa ngi lay dalal fii aussi ak un grand responsable de notre coalition doon sa xarit muy maître Ousmane Seye tey nga ñëw euh, jébbal ñu quatre mille parrainages mun nañ jàpp ne def nga di pour cent ci li ñuy wut déjà euh, di la ci félicité mais surtout di la félicité ci sa taxawaay parce que militant aussi euh, dafay yëkkati kàddoom voilà di défendre son camp euh, di défendre le président de la République ak surtout liggéeyu président de la République wax nga ko te sa taxawaay vraiment rafetlu nañu ko ni nga ko waxee Sénégal moom. Euh, c'est un pays de paix dëkku jàmm la euh, moo tax vraiment bu ñu gisee des jeunes yu mel ni yow am taxawaay am vision bi nga xam ne wax nga ko sànq ne Sénégal dañ ko war a tabax ci jàmm ak ci salaam euh, parce que loolu moo ñu jig loolu mooy suñu réputation pays de stabilité ñu war a waxtaan surtout avec la jeunesse ñu xam ne aussi war nañ def la différence entre ñi nga xam ne aussi euh, violence la ñuy prôné ak ñi nga xam ne euh, vraiment am nañ ay propositions. parce que nag programme de gouvernement mënta doon violence mënta doon ay saaga mënta doon aussi ay xaste kooku mënul loolu duñ ci yor réew euh, te dëkk bi nag toujours dama koy wax la l'écrasante majorité des jeunes li ëpp ci ndaw ñi xale yu ñuy yar lañ xale yu respecté seeni mag lañu xale xale yu respecté seeni morom lañu xale yu gëm Sénégal lañu mais toujours nag ñaari pombiteer boo ko bàyyee ci saaku bu yàqee bu yàggee mu yàq saaku bi pombiteer yooyu nag vraiment leen war a identifier génne leen ci saaku bi euh, kon vraiment ñu ngi lay euh, féliciter ci turu président de la République euh, di vraiment rafetlu sa engagement à ses côtés parce que nag engagement aussi ni nga ko waxee du yor rek ndomb tànk toog sa kër déedéet engagement mooy aussi Euh, ngay défendre sa camp di défendre les acquis di nangu aussi les critiques parce que tout dama koy wax parce que nul n'est parfait euh, di la féliciter aussi ci say conseils yi nga xam ne am nga ko Rufisque parce que militant nga bu am base aussi voilà euh, demoon sur vos am am sa ay sa ay conseillers au niveau de la ville de Rufisque mais ni ñu ko waxtaanee sànq aussi di ñaan aussi foofa yéen ñëpp ngeen àndaat doon benn parce que bu ngeen àndoon ci élection yi daanaka yéenay gañe lépp te xam naa ne waxtaan ngeen seen biir ba incha allah am nañu yaakaar ci Rufisque bu baax a baax a baax parce que à Rufisque le camp du président de la République est majoritaire loolu amul benn sikki sàkk kon ñu ngi lay sant vraiment di la ñaanal encore plus d'inspiration eh, ci sa liggéey d'artiste eh, di vraiment le remercier vraiment ci sa taxawaay ak ci sa engagement waaw salaamaaleykum waa Sénégal euh, tey nag dama ñëw fii seet si euh, euh, madame Aminata Touré PM nekk koo xam ne ñëpp xam ne ni jàmbaaru président Macky Sall la tey nag ma ñëw jóge Tëngéej def sama parenage indi 4000 parrainage yoo xam ne tey dama ko indi jébbal la ko te duma yem ci loolu damay indi 4000 yi mais dinaa dem wutiwaat indiwaat pour jàppale président Macky Sall parce que man ku ma xam xam ma ci defendre la président Macky Sall te nag défendre ma ko parce que dama koy défendre rek pour yaa ma neex mais ñëpp gis nañ liggéey bi nga xam ni fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko indi ñu toll ci jamono nag boo xam ni ci termes yi may utiliser nii mu am ñoo xam ne man dama jàpp ne ay bandi lañ dañuy gis ku yàlla baaxal muy liggéey ñu bëgg a tilimal liggéeyam ñu nekk ay jeunes bokk ci réew mi ubbi suñuy bët gis fi président jële réew mi ak fi mu ko indi tey ñu taxaw jàkkaarloog ñoom tey nag euh, benn yóbbante rek laa am boo xam ne dama la koy yóbbante ci président Macky Sall mooy législature bi di ñëw ñëpp gis nañ ñi nga xam ne ñoo prétendre pour dem fa te ñi fa prétendre dem yëpp ay nit la ñoo xam ni tey seen lépp ci violence verbal lañ ko teg ak xas président ak tilimal liggéeyam donc nag président dafa toll ci dafa dafa dañoo yegg ci mu jël ay nit yoo xam ne war nañoo mën a jàkkaarlook ñooñu xeex ak ñoom parce que ab député du nekk assemblée rek di nelaw wala di tàccu wala bu ñu saagaa sa patron nga noppi dafa am ñoo xam ne ñoo war a jàkkaarloog gaa yi di leen tànc te ñun nii ay ndawi président lañ parce que moom la ñu bëgg moom la ñu gëm di ko jàppale donc yóbbante la boo xam ni maa la ko yóbbante euh, euh, madame euh, la premier ministre donc pour que lii nii nga yeggalal ñu ko président Macky Sall parce que ñun ay soppeem lañ te dëgg-dëgg neex yàlla gis nañ liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey te man à part sax waxi yëpp yow si sa bopp mi nga xam ni président daf la tànn man dama laa soppal sama bopp ndax naa am na ay góor yu fi nekk di dox mais yàlla man téeméeri junni yoon donc nag lii yóbbante la bu ma la yóbbante président pour que législature bi di ñëw ñu fexee ba dugal ay nit yoo xam ni dinañ mën a jàkkaarloo ñii nga xam ni ñooy prétendre ni assemblée lañ jëm te nekk wuñ fi dara lu dul di jaxase li nga xam ni moom la président def